problème ah dama mun a nekk conseil non dina ba sax mu di n'est pas. saa yi xoolal ku la gis nag yaakaar ne xoolal ku la gis day yaakaar ne instant nii intellectuel moo toog suñu tool nii. yow yow kon comprendre comprendre fekk livre bi kii moomu bind di ma remercier Diop Baye Dène Diop Biden moo bind livre bi. président États-Unis ngay wax nii de. ah ko fal di kooku suma remercié wàcc na. président États-Unis waaw waaw sama. kon yaa gagné Trump. sama cag bi moom moo ko indi léegi yu sàll wax dëgg yàlla moom moom la yónnee mu indil moo ko. xam nga parce que waa ji dafa kontaan waa état population Amérique kontaan. Joe Biden kontaan bind ci man benn livre maanaam ba ma koy jox ay cours pour ni muy def ba jiite réew ni muy def ba gañe réew. xam nga xam nga dama ko doon jox benn discours di waxtaan ak moom naan ko il faut respecter les peuples américains et américaines xam nga américains et américaines la ñuy wax américain mooy góor américaine mooy jigéen mooy jigéen wax ko ni muy aw ba kii ko parce que tëram il faut ma jëlee woon ko fa parce que jotoon naa américain yi amoon nañu leen metti gars yi ñëw seet si ma waxtaan ak man danañ fa bëgg jëlee tëram jël ma yóbbu ma États-Unis ma dal biir Miami 4 mini ami ma dal fa 4 mois di campagne do Joe Biden di waxtan ak mom diko jox diko wax nu ñuy campagne diko wax parce que duma ko ndaw Sénégal duma ko ndaw ci aduna non la ko campagne lay dal ba jappal ko ñëw léegi si la bindee livre bi livre bi bientôt sax mo bind ci film gis nga livre bi si la ko bindee nee na kado yi moo ma ko indil ay batang ay raakool yépp ci ka kii la moom moo ko ci bindaale bind kii indi ne ma lu tax mu defee na carte Afrique bi nee na mosuma gis africain bu amee xam-xam comme yow léegi si la ñëwee desee ne fii ñëw ba gis nga maa nekk nii maa nekk nii maa maa si gën a ngant yeneen africain yu amul xam-xam yi mooy bind tuuti xam lii daf may décorer daf ma décorer daal waaw xam nga léegi xaaral loo ci mën a liir nga liir loo ci mën a liir nga liir <laughs> sama xarit la booy kontaan na ci man ba pare Obama woo ma félicité ma. Ah, Obama parce que Obama laa defoon directeur campagne am. Obama laa defoon directeur campagne am. Cheikh ma rakk Obama bi ma def ko ministre cabinet. Cheikh Cheikh ma Obama Cheikh ma Fatouma xam nga Neymar. ñoom ñëpp ñoo bokk Neymar nga te américain naan brésilien di ñu nax ñoo bokk ndey ak baay ndey ak baay loolu bu soo ko xam ñoo bokk nu même mère même père même mère même père Neymar ak ak kan Obama ñoo bokk ndey ak baay gisoo nañu duróole sœur bu tudd Fatou waaw Fatou ak Gueye xam nga Gueye Mar Déba mooy kan. fii la la dëkk benn caméraman benn la. mu dëkk. grand bi. lu mu waxoon ñoom. Mbaye. au lu ma gën a neex ci discours am. waa ji lu ma gën a neex ci discours am Mbaye de fii mooy papay Vaydey ba muy tudd Vaydey turam la jël rek xaaj ko def Vaydey Baydey. c'est que man lenn rek moo ma métti mooy sa poupée nga ma jàppee daal. poupée poupée. non kon li ma lay wax ni yow ay léeboon ak lippoon la lay kii. non non poupée nga ma def. ah bon loolu nga gis. waaw ah, non dam dam loolu laa loolu moo am sax non loolu am de. ok comme poupée nga gis jàppal ni poupée nga. non non mais yow. non non loolu wax. parce que tamit mënu ma waaw man du man du ma ñëw fii lii à chaque fois may ñëw di la fréquenter bon nga yaakaar ne man fi mu toll nii man loo ma wax rek après loolu noonu moom dafa war a nekk ci man quoi non non non non. ok c'est bon. yow yow yow c'est que da yow yaay nekk jeunesse yu Sénégal yoo xam ne du ngeen gaaw am xam-xam xam nga la moo tax parce que bu ñu leen di wax dara du ngeen déglu te xam-xam boo ko bëggee wax gis nga ku la ëpp xam-xam su lay wax da nga loolu du man maa suñu borom moo ko ah. yàlla moo ko bind ci benn saar bu ñu naan inna mul fita saar boobu inna non saar boobu suñu borom moo bind saar boobu yàlla nee na ku ëpp xam-xam su lay wax xam da ngay toog nga déglu ko bu boobaa day tax nga am xam-xam boo toogee feneen ñoo xam ne yaa leen mag ëpp leen xam-xam sooy wax ñoom tamit dañ lay déglu. waaw ah, saar doo ko saar bi du ma ko jàng bëccëg guddi bu doon guddi wax dëgg yàlla ma jàngal la ko wala ma sol jàllale dinaa la ko jàngal mais nii nii mënu ma see sore loolu day tax ngeen am xam mais yéen booy Sénégal li mooy seen problème nit da leen ëpp xam-xam ëpp leen niveau di leen expliquer yéen jàngoo leen yéen sem deux ngeen yem yéen école yi ngeen jàngee. race gor yi. waaw école yi ngeen jàngee. man jàngee ma fii. man dañ ma fayal mu dem France jàng. waaw man Los Angeles bu France laa jàngee. Los Angeles bu France. France amul Los Angeles. ah bon. waaw maa bañ. kañ la France amul Los Angeles. Los la am. Los Angeles États-Unis la. waaw dañ ko toxal yóbbu ko France la nekkoon. kan France la nekkoon temps yi may jàng. dañ ko toxal yow doo daan. ah tout nañ ko toxal. dañ ko toxal dañ ko toxal. France la nekkoon nekkoon biir Nice falaa doon jàngee biir Nice falaa doon jàngee jàng naa fa falaa dama am bac Sénégal rek ñu yóbbu ma baax na baax na ñu yóbbu ma ma def fa première année deuxième année troisième année ma jóge fa ñëw fii dem dem dem Arabie Saoudi dem jàngi xam-xam yow yaa dem Arabie Saoudi Arabie Saoudi laa jàngee xam-xam man xam-xam laa lay wax nag saway il faut que li may wax ak yéen ngeen di déglu ngeen di nangu di déglu. ah, ah di toj seen xel di déglu pour nu ma lay wax li ma lay wax nii mun nga ci joxe ay thèse. di ci jox ay nit thèse ñu ko ciy. yow yi nga yi nga may wax nii yow des fois di nga waxtaan ak Youssou di ko wax yooyu noonu. kan yow yi nga may defal nii. est-ce que est-ce que xam nga dara. waaw pour ma wax la benn affaire Youssou ndax dama koy wax loolu. te xam nga Youssou dem alma dem États-Unis dem États-Unis bu mujj bi. waaw CV ba mu ñëwee maa ko bind. ma bindi CV yow man mun naa jël sa CV maa jël CV bind ko bind grand artiste comédien grand réalisateur bind si à tout moment électricien qualifié américain yi ba ñu xoolee loolu dañ ko woo ne ko ça va kan moo la bindal lii mun na ko peut être américain yi woolu ma ne ko munuma ñëw tamponné leen ko gars yi may ko visa cent trois ans. cent yow loolu gars yi léegi américain yi loolu leen cent ans lañ ko may saa bu ko neexee dem ñëw saa bu ko neexee dem ba man gis naa benn gain. benn gaayen xam nga robaa su buggee dem su buggee tissooli États-Unis lay dem tissooli yow parce que ah waa kooku. robaa ah. waaw waaw mais ku ku yuuxu foofu. ah sa garaaw la. ah yee sama garaaw bi la. waaw ah, yéen daa xel kon la. xam na li nga wax ñoom ñaar ñoom ñaar li nga wax moo rëy. waaw ah, ñoom ñaar ndeysaan ñoom ñaar ñoo doon bërindoo. rabaa combat bi mujjee bëri bañ koy wëndeelu moom moo ko yóbbu woon bañ ko wëndeelu ndeysaan combat bu neex. combat bu neex waaye da koo wëndeelu. waa eh, garaaw. muñal rek amul problème de. waaw ah, quand ay eh, gars lañ. waaw ah, coow ji man kay xam naa rek moom mooy loolu yow moom. nii rek lañ lay bàyyi kay. xam naa su ma jógee fii léegi damay dem ambassade États-Unis parce que il faut ma dem. Eh fekkee waaw non waa ji. dafa war a taxawal bureau bi taxawal gouvernement bi te gouvernement bi gis naa fa benn gars yi neexum il faut que ma dem wax ak Joe Biden ne ko mu génnee ko foofu. Eh, foofu doomu doomu yóbbu ma nekk foofu foofu. Ah. parce que mën naa wax rek. yow loo mën. Ah. léegi amul la bu ñu eggee boobu nga may tingoomal doomam yi. tingo amul loo tingoom doomu américain. loolu baaxul si si yow. non da ma yab nag non franchement da ma. booy yow eh. booy ma. booy dëkk bi daa mag. billaahi tingoom doomu américain. booy loolu liggéey la de. non mais yow loo yow yow yow yaa ni yow yaa ko fal. waaw waaw loolu porté mais mais liggéey état bi liggéey yooyu moo fa des mun naa la yóbbu daal ngay tingoom doomu américain yi di leen tingoom di ànd ak ñoom di wër chaque weer ñu fay la loolu baaxul loolu baax na de booy loolu joob la de. non nga xam man sama waaw léegi bëgguma baax man dem États-Unis ba liggéey manqué man dañ ma doon sangloo gaynde sang sang naa gaynde États-Unis deux ans balaa ma nekk li ma nekk deux ans may sang gaynde gaynde bu ma njëkk gaynde bu ma njëkk sang. bés la tuddoon ma sangu ko mu màtt ma moo ma màttoon fii si laa ko so xala si laa ko songee muy si laa ko songee muy doddol ma xeex mu xoo xeex bu metti doomam ñëw di ma sot ma pénétré doom ji ba mu dee fa la ma gaynde jaaree respecté ba tey booy aw ma temps maa ngi génn waay. non non man munoo ma ah leer la fi bàyyi حتى يهلك